Adam. fi. E.

salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp si taw feex Production ñu ngi taxaw ak euh, Pape Moussa ñu gisoon ko nag muy tàggat xale yi e, ci wàllu ay way yu neex ak ay xeeti manifestation yoo xam ne suba war nañ ko amal fii ci journée bi journée bi tari alxuraan bi ñuy defal fii ci daaru xuraan Pape musa léegi nga wax ñu rek yéen fan ngeen toll ci préparation ak lan ngeen ñu waajal. waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk jullit yëpp rek ak mbooli taalibe yi waaye tamit di sandaat bu baax a baax di wax alhamdulilah euh, mboolem loo xam ne aussi ñu ngi ko doon formé ci xale yi yaakaar naa alhamdulilah xanaa kay li ñuy xam ne moom la ñuy njëkkante pour wax ko rek mooy dañuy wax ne moom mboolem ko xam ne soppe nga wala am di jàmm ngi lay wax suba bis bi incha allah rabbi moom ku teel dañoo doon am place ndax xam ne yaakaar naa suñu génnee moom incha allah dinañ xam ne na waaye tamit daara ji liggéey na ndax dañ ko ànd ak waa daara a ak waa école bi kon suba moom yaakaar naa moom bis ñëpp la waaye tamit bisu waa école bi la waaye yaakaar naa ko ñi ñëw ñoo si solo kon ñi ci woo am di jàmm yeeg soppi yeeg ñëpp rek incha allah bàyyiwuñ kenn dina wax ne xëy daal incha allah moom ren moom 2024 bi moom yaakaar naa moom dina raw yi fi jërë jàll yëpp waaw incha allah waaw surprise waaw message yi moom incha allah xam naa dañ koy def surprise dañ koy rek waaw dañu koy nëbb suba ndax xam naa li ñu war a jàllale moom xam naa ni ba faaw moom <laughs> incha allah rabbi ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci tawfeex rek ñu tàmbalee ko ci alhamdulilah euh, bis euh, jeex tàmbalee ko ci bisimilah rahmaani rahim waaye jeexale ko ci alhamdulilah rabbil alamin ñëpp fekk ko ci jàmm ak salaam ñëpp delluwaat tamit ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, sëñ Mourtalla ñu ngi lay nuyu bu baax di lay ziar comme ni nga ko waxee ñu ngi ci préparation bis bi le 14 waaye préparation bi du tey rek la commencé waaye fan yii yëpp commencé nañ ko ci daara ji commencé ko ci école bi ñu xam ni dañoo boole conférence ak fin ne Kër Maam Euh, moo tax ñaar yëpp lañ boole fan yi daal nag xale yi dañoo nekkoon ci daara ji di eh, préparé élèves yi nekk ci école bi di préparé waaye nag tey dañoo boole ñaari pour mu nekk benn euh, préparé na ñu am solo nag ci programme yi incha allah suba dina gën a euh, fés. waaye liñ ci mën a wax mooy xale yi seen préparation pare na ci njàngum alxuraan meek yëpp activités yi ñuy def waa daa waa école bi tamit seen préparation pare na ci discours yi ñu war a plateau yi ñu war a def ak lépp loo xam sa bis bi soxla na ko euh, incha allah boobaa <laughs> dina yemb ci ci lëkkaloo si boobu. waaw waajal na ay message yu am solo yu jëm ci njàng. yenn yi jëm ci kin tuddee bés bi yeneen jëm ci ko sanc daara ji sëñ Maxtaar Jeen ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne si incha allah suba lay gën a euh, lañ ci gën a am lu lu leer yoo xam si yu am solo yoo xam si xale yi waajal nañ ko ci ay discours ay plateau spécial ay ay ay ay ay ay tari euh, yu am solo daal incha allah xale yi waajal nañ ko. Euh, li ñuy wax parents yi mooy mooy ñu delloo njukkal sëñ Maxtaar ndax ku woote bés bu mel nii xaaroo ci kenn amul benn parent boo xam si sëñ bi xaar na la c nga cotiser dara wala nga nga nga nga joxe dara lu waay def rek sa coobari bopp nga koy def waaye moom xaarut ci kenn dara kon nan jaajuwaat ñoom ñëpp ñu ñëw sargal sëñ bi ndax loolu rek moom moo ci am solo saa mu woote na jël xaalisam ak alalam ak temps yëpp def ko ci kon li li seenum sag wala li sagu sëñ bi li sagu daara ji di sagu école mooy parents yëpp wuyusu ko euh, loolu loolu mooy lu am solo ndax moom xaarut ci kenn dara waaye nag wuyusu bi moom moo ci gën am solo kon ñu ngi woo yëpp ñu ñëw euh, sagal ñu sagal sëriñ bi ci woote bu am solo bi waaw ñëpp lañ la fi 14 fekk incha allah. jërëjëf euh, Cheikh Moutalla Tawfekh Production euh, comme ni nga ko waxee rek bis bi moom incha allah xëy na ñi ngi ci préparation bi ñi ngi ci dernier réglage yi bis bi nag nekk la loo xam te ni comme bisu Alxuraan la di ñaanal xalifa général di Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha. nuy ñaan xalifatul am li tarixatil muridiya sama borom may ko fanu gudd ak wér ndax kuy woote bisu Serigne Touba rawatina bisu Alxuraan mooy bis Serigne Touba faw nga jiital ci ki nga xamante ne mooy xalif général kulli murid Cheikh Ahmadou Mountakha euh, jiital ci ñi nga xamante ne si mooy kilifay diine yi nga xamante ne ak kilifay aada yi nga xamante ne ñoo nekke ci dëkk bi ci réew mi ak biti réew ak fépp sëñ Maxtaar mi ngi ci woo ni ma ko waxoon démb ak barki démb julliti yàlla yi mi ngi ci woo rawatina njabootu Serigne Touba. mi ngi woo nag ñi nga xamante ni ñoo ŋànk dëkk bi di sëti sëriñ Touba yi nga xamante ni mbooleem koo xamante ni si rek sëriñ Bele meññi moom sëñ Maxtaar mi ngi lay woo muy xarit yi muy wëllër yi rawatina ñi nga xamante ni si nag ku ci mel ni ndax ku ci mel ni sëriñ Xabbaan Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal nga xam ni lii ñuy def nii ab liggéeyam la moom lañ koy defal moom sëñ Maxtaar mi ngi ko ci woo ndax seex Cheikh Mamadou Muntaxa moom la jël mboolem lu ñuy defal alxuraan teg ko ci loxoom kon mi ngi ko ci woo njabootu Serigne Touba yëpp la tàmbale ci cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci cheikh Mouhamadul Mourtala sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Matar bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñëpp. mboolem ku gis daal wax ji na la leer ni mooy sab leetar waaye mooy sag fattali waaye mooy sag yëgal ci bisu alquran bi sëñ Matar di amal fii ci Mbusoobe ci école bu mag bii di école bi nga xam te ne moom la fi defal Serigne Touba Xaadimal Moustapha kon nag mi ngi ci woo bokk jullit yëpp di ci woo taalibe di ci woo xarit yi ak wóllëre di ci woo nag mboolem ñi nga xam te ni ñoo ŋànk dëkk bi ku ci mel ni Abdou Lahad Ka ñi nga xam te ni mooy meeru dëkk bi ñu ngi ko ci woo. di ci woo euh, ñi nga xamante ni ñoo am lanteeg sëñ Maxtaar ci biir dëkk bi ñëpp daal sëñ Moutala sëñ Maxtaar mi ngi leen ci woo. bis bi nag ku ci bëgg a ñëw euh, fi ngay jaar ba agsi fi euh, la ñu bëgg leeral képp koo xamante ni si yaa ngi jugee ci watu jumaa ji soo soo dépassé garas Dakar bu njëkk bi ba war rond bi jël tali bees boo ñëwee da ngay laaj ci tali bi jëm route de Sexaw gi. soo jëlee tëli bu bees boobu nag boo boo doxee tuuti rek da da ngay daw ba ba jub fi nga xamante ni si mooy euh, gis ngeen monument bi nga xamante ni si moo nekk fi nga xamante ne mooy ci intersection bi boo ñëwee ba ci monument bi rek defal ndeyjoor soo defee ndeyjoor di nga jàkkaarloo li nga xamante ne mooy base bi foofu lay bis bi amee kon nag ñu ngi woo xarit yëpp wóoleere yi am di jàmm yëpp sëñ Moxtala bismillah ñu ngi ci préparation bi ñu taxaw ak sëriñ Abdou Ahad Lo nekk jëwriñ Daaru Quran sëriñ Abdou Ahad ñu nga wax ñu fan lañ toll rek ci préparation bi. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di la jaajëfal Cheikh Mouhamadou Mourtada ci liggéey bi nga xam ne euh, depuis ñu taxawal ko ba tey ji yaa ngi koy ànd ak ñun. Euh, di leen jaajëfal bu baax yéen ñi nga xam ne di yéen ay topp yi nga xam ne moo ngi bàyyi ko fii ci liggéey bi waaw liggéey bi comme ni nga ko gisee rek mooy bis bi nga xam ne euh, Serigne Makhtar Diène moo ngi koy waajal fii ci euh, complexe scolaire Kër Ma Awolo mu nekk Mboso bi jàkkaaroog jumaa Sëñ Xaban ji waaye lëkkale ko daaree daaru Quran Karim ji nga xam ne am na nañu fukki xale ak benn yoo xam ne mokkal nañ ñu baloo conférence boo ak feedaana bi ngir amale ko fii dimanche la quatons à 15 heures su ko defee waataay wi nag nii nga ñu gisee rek depuis fan yii yëpp ñoo ngi ci yi ñu war a euh, defar yëpp ñoo ngi ci xanaa li ñu def rek mooy xeeti fànn gu ci nekk ña ca nekk ñu leen di gën a soññ bu dee ci li nga xam ne ñoo aju ci wàllu organisation bi wàllu accueil bi ñu soññu leen ba nga xam ne ñu def yitte ba nga xam ne it ñoom ñoo fi jiitu nit ñi gannaaw ba ñoom ñoo woote war la leen a dalal kon ñoom yaakaar naa ñoo fi war a jiitu nit ñi waaye di soññu it parents d'élèves yi ndax yaakaar naa keneen kuy ñëw it ñëw gi nga ñëw ñoom nga cay jàppale waaye ñoom la seenu njaboot am lii ñoom la seenu njaboot def lu jar tey ji ñu leen sargal kon yi ñoo ngi leen woo di leen soññu ci ngeen teel a ñëw te anam gi nga xam ne moom ngeen war a ñëwee ngeen dikkee ko nga xam ne ñoo yor lu aju ci wàllum euh, séddale yi fi aju mooy sëñ Mouhamed Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Dialibatoul Marakhib moom it ñu koy soñ bu baax ci li nga xam ne moom la war a def buñ ci àggee ñu def ko def mu muccet woo xam ne bis bi ni ko sëñ bi bëggee dana jàllee noonu te du am benn désordre du ba am benn jafe-jafe di invité mbooleem koo xam ne yaa ngi safoo alxuraan mbooleem koo xam ne yaa ngi yëngu ci xam mbooleem koo xam ne yaa ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci waaru xam ñoo ngi lay ñoo ngi la ci invité di la ci woo ñaan yàlla suñu borom mu def ñu tawfeex ak ndimbal ak mucc ba nag ci ak jàmm te luñ ci séenu ñu am ci lu kawe suñu jort Serigne Makhtar Diène mi nga xam ne it moo taxawal lii te di def jéego yoo xam ne lu waay gàtt-gàtt am xel lu waay naqari naqari ab gis gis nga li muy def ci alxuraan yëg nga li muy def ci alxuraan gis nga yi nga xam ne yu am solo moo koy def ci dëkk bi Serigne Makhtar Diène la ñu ñaanal suñu borom guddal aw fanam wéral ko ba li nga xam ne moo ngi koy liggéey ci tool bu lislaam bii ci biir kër Serigne Touba gi suñu borom defal ko tawféex ngam àggale ko ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wali raadam duran wali galamal janna mbokk jullit yi mbokk talibe yi asalaamualeykum wa rahmatullah daara xuraanul karim lëkkaloo ak complexe franco arabe kër soxna mam abalo kamal ci njiital sëriñ maxtaar jenn di ku ràññeeku ci jàngale alxuraan ak yar ci diine moom am mbégte ak tawféex di yëgle karim alxuraanu ndongo ya fa mokkale ak seen feetu fin d'année li ñuy amal dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 di ko dalee 14 heures ca daaru manaan bu soobee complexe waa kër soxna mam abalo kamal muy événement bu mag xew diine bu mag bu ñuy amal at mu nekk nekk di ci joxe lijaasa ak neexal ndongo ya fa woto alxuraanul karim ak jox ay neexal ndongo ya raw ca composition ya ca complexe franco arabe waa kër soxna maam awalo ren ñu fa yéene sargal ak feeñal liggéey bu am solo bi soxna Maymunatu Mbàkke bintu Serigne Abdou Lahat Mbàkke directrice complexe scolaire kër Serigne Abdou Lahat di liggéey ci jàngale ak ci yar muy bésub alxuraan bi soppey alxuraan bi ràññiku lool ci jàng ak jàngale alxuraan ak yar dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 ca complexe kër soxna maam awaloo daaru manaan bu soobee di ko yëgal ak di ci woo kilifa diine yëpp mbooleem soppey alxuraan yi sëriñ daara yi waajuru yi mbokki jullit yëpp ak mbokku talibe yi bés bango fukki fan ak ñeent ci weeru juillet 2024 ca complexe franco arabe kër soxna maam awaloo daaru manaan bu soobee assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu